tegee fanweeri simili ak juróom la avion armée Sénégal di tegu ci piste camp militaire bu armée de l'air ci biiram ñi nga xamante ni ñoo mucc ci gaal bi bàyyi ko woon Fass Boye daal di teeri jee fële ca Cap Vert. ba ñu demee nag gis nañu ne euh, ñi nekkoon ci gaal gi ñu ngi jógee li ci gën a bare ci Fass Boye fii ci région de Thiès ak Diogo euh, ñu nga woon téeméer lañu woon ak benn waaye fanweer ak juróom-ñett ñoo ci mucc maa ngi nag jaale ci turu président de la république ci turu gouvernement bi euh, ci turu ci sama tur di jaale famille yi di leen màssawu bu baax a baax a baax. kii demoon ci turu njabootu ñi nga xamante ni ñoo lorule ci bile jëya lim xamle moom moo di am na si juróom-ñaar doomu aadama yu ñu fekk ñu ñàkk seen bakkan fan lañ leen daal di mujjee rob. la dogalee loolu nag ba pare bi ñu demee ba démb ñu gis ni am na juróom-ñaari koor fa yor yoo xam ni situation yi doy na waar ñu toog waxtaan bi ñu waxtaanee tamit ndigal lañ demee woon. bala ñu ciy de dara dañuy delloo si ndigal li si réew mi ñu waxtaan ak kilifay Fass Boye ñu jox ñu ndigal ñu denc xale yi ñoom ñëpp denc nañ leen dencin bu rafet dencinu jullit. góor si daal di ñàkk ay doomam ak i sëtam ci bile jéeya di ñaan nguuru Sénégal mu taxaw bu baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo daal di mucc ci bile gaal. kilifa yoo xam ne jot nañ ci waxtaan ak ñoom pour ñu jàppale ñu ci xale yi ci état d'urgence bi ñu nekk ak fi ñu taxawaay bi nga xam ne moom moom moom fi ñu toll. parce que xale dafa am foo xam ne bu fa tolloo ci problème bu mel nii soo ko bàyyee rek mën na xelam mën na dem wala mu jóge fi sax def lu gën metti dee mooy ñàkk xelam dootul xam fu mu jëm mu réer di dugg ci ay catastrophe yoo xam ne kenn du xam ni mu demee donc ñu bëggoon nag état mu dimbali ñu ci xale yooyu. ci fàttali bile gaal mu ngi jóge woon ca Fass Boy yeboon lu toll ci téeméer ak juróomi doomu aadama ki fukki fan ci weeru juillet bi ñu génn mu daal di teer ca fa nga xamante ni moom moo di île du Cap-Vert ak fanweer ak juróom-ñetti doomu aadama.